ki lay voté mm-hmm. euh, bureau numéro un euh, foofu lay voté à l'instant moom voté na bay génn mais jafe-jafe bi ci bi ñu nemmeeku rek mooy bi mu ñëwee di def déclaration am euh, ñenn ci kuréelu opposition bi dañoo ñëw ne lu ci daal warul defee ci déclaration dañ koy aaye Euh, taskatu xibaar yi ñoo doon sàkku ñu jël ko euh, mu def déclaration am mu jëntal ga dañ yeggale ñu ñu interview bi mais nag euh, dañoo mujj na taskatu xibaar yi bu ñuy defaat déclaration nañu sori centre bi loolu nekk jafe-jafe boo xam ne nemmeeku nañu ko ba tax na moom kilifa gi xawoon naa am lu ko metti loolu mu mel ni genre xëccoo Euh, mais nag force de l'ordre yi teel nañ ci àddu daal di euh, indiwaat dal foofu ci centre bi nga xam ni moom nee na bi mu fi dalee fa teg euh, léegi boobaak léegi am na fanweeri at musul am jafe-jafe yu mel nii nit ñi nag nañu tal ku nekk boo voté ba pare nga delluwaat sa kër delluwaat sa yitte lenn li nga xam ne nag rafetlu na ko mooy élection bi nee na participation bi li mu gisagum dal na xelam ndax kat fi ñu toll ci bëccëg gi Euh, rang yi bëri na loolu mag ñi ndaw ñi ñëpp dañoo ñëw xote donte si weeru koor la ñu nekk loolu rafetlu na ko loolu bu loolu weesoo nag ñun bu ñu jógee fii dinañ dem maam euh, stade Demba Diop foofu nga xam ne centre la tamit ci mhm. commune bi am na quatorze bureau de vote yoo xam ni nit ñu ngi koy jaabante ci suba ba léegi euh, centre bi nga xam ni mooy Ali Imran moom it soriwul fii dara am na ñetti bureau de vote dañ koo tas ak bii nga xam ni fi ñu jóge léegi Euh, loolu itam jural na nit ñi ay jafe-jafe soxna naata. Mm. parce que jaabante bi da ngay gis bu ñëw ba ci buntu bi. tàllal sa carte ñoo xam dañuy rang ba sonn ba ñëw jege. ñu ne loolu mu nekk jafe-jafe boo xam ne ñu ngi koy mer nañ lool ñu ci bari nag. Mm-hmm. nee nañu organisation bi moo des ci ci côté boobu. Mm-hmm. merci beaucoup jërëjëf a Ndiaye nekk foofu foofule euh, ca Liberté 3 centre social ba du ñàkk yi tamit euh, voilà ba Babacar Sall euh, foofu ca Grand Yoff dañ koy déggu Alaaji Malick ñu dellu si. Mhm. wax rek ne ñu ngi ñaan yàlla et j'en appelle à tous les Sénégalais pour qu'on aille à un vote sincère mais surtout à un vote serein affaire bi jarul xuloo jarul xeex sénégalais yi tàmm nañu vote mën nañu vote xam nañu vote. nañ leen wóolu doy leen leen kenn dofu ils sauront faire les bon choix en tout cas ñu ngi gërëm ñëpp ñoo ngi sant ñëpp di leen wax nag di leen joxe rendez-vous parce que gëm naa ni gëm naa ni le prochain président de la République du Sénégal ce sera Khalifa Ababacar Sall je vous remercie inchallah mi ngi noonu ba Ababacar sàll moom euh, mu yëkkati ay kàddu ci confiance bi mu am tey jilee euh, ci issue euh, vote bi jàpp na ni moom moo nar a jël ndam li alors yeneen candidat yi tamit.